ñu àndoon ak ñun ci xeex yi nga xam ne ñu ngi ko doon xeex injustice ñu ngi ko doon xeex euh, pexe yoo xam ne noon pexe na ko pour dal suñu kaw rek pour jëlee ñu ci géewu politique bi ñoom ñu am ci taxawaay bu am solo boo xam ne wéetuñu ci woon nag waaye taxawaay bi ñëpp gis nañ ko kon jaadu woon na tey niñ koy defee ci organisation yëpp muy organisation citoyenne organisation politique euh, guide religieux yi fépp dinañ fa teg tànk jaajëfal nit ñi parce que ñun dama naan askanu Sénégal dese luñu dara dara tey suñu waroon joxe suñu bakkan sax ngir Sénégal baax ko dinañ ko joxe parce que defal ñu loo xam ne gëw ma ni homme politique mës na ko am fii ci Sénégal hmm. donc ci cadre boobu lañ ne dinañu nemmeeku ñëpp dem euh, ñëpp remercier leen ñuy waxtaan ci réew mi ci cadre boobu lañ ñëwoon seet si suñuy mbokk ñu dalal ñu dalal bu yaatu bu rafet ñu waxtaan ci mbirum réew mi waxtaan ci li nga xam ne moom la ñu bokk di xeex mu ñun parce que li ñu bokk le leen rek moo ñu utale ñun mooy ñun dañoo décider def parti politique pour jàpp ni sa xalaat nu mu rafet rafet sa gis-gis nu mu rafet rafet soo toogul fa ñuy jëlee décision yi ba mun a appliquer loolu du ma du ne amul njëriñ waaye dina xam na sax ñoom dañoo jàpp ni seen rôle du dem conquérir nguur gi waaye seen rôle mooy am taxawaay boo xam ne ëllëg sax su fekkee Ousmane Sonko fi ne woon te def na naka sudul noonu dañuy jàmmarloog moom dénoncé nii lii du yoon waaye soo génnee loolu leneen lépp ñoo ko bokk mooy li ñuy xeex ngir moomaat suñu bopp ñëpp xam nañ ni ñun bañ nañ ba patriote lañu la ñu wooye suñu bopp la ñu gën patriote mooy koo xam ne dafa bëgg réewam jiital réewam ci lu ne la ñuy xeex ñun te mu ñor ñu torop mooy noot gi ñu noot ba tey suñu réew sax moomatuñu ko mooy suñu alal réew soo jëlee or wala pétrole wala zircon wala gaz wala nga jël géej gi li ci nekk ci jën wala suuf si nga xam ne ñu ngi koy nangu ci loxo nit ñi suñu alal réew sax moomatuñu ko ñun loolu moo mooy moo gën a fës ci suñu action politique moo tax luñ lu ñu daj ci politique loolu ñu ko andil kon loolu moom moo ñu boole ñun te loolu moo ëpp solo ci li ñuy def après kii mun a nekk parti politique kii nekk bu moom mouvement soutien mais loolu amu ci solo donc loolu la ñu waxtaan ci waxtaan gi nag waxtaan nañ ñi jagleeluñu ko wala jub ak réew bu munti doon ci àdduna moo xam France nga tudd wala Chine wala Japon wala Amérique wala keneen ak keneen Turquie ak ñoom seen ubbireeku nañu pour ñëpp ñëw ñu liggéey waaye liggéey gi ci kaw kenn ku nekk jël ci wërsëgam ba mu mat waaye ni mu doxee nga xam dañuy ñëw jël suñu alal yëpp bàyyi ñu ci weccet bi loolu dafa war a jeex ci réew mi te loolu nag dirigé wuñu ko ci réew sàngam wala réew sàngam bu dee nag li xew nit ñi dem nañu euh, euh, cibler particulièrement ay intérêt benn réew ñu koy wax France loolu du suñu ndigal ñun suñu ndigal du woon sax ñu dem attaquer kenn wala toj yëfu kenn ndigal du woon loolu waaye dafa fekk fu manifestation am France googu ñuy tudd sax ba ñuy def seen manifestation gilet jaune soo seetee magasin yi nekkoon Champs-Élysées yëpp nit ñi dañ koo toj parce que saa yu nit ñi génnee bëri ku nekk am nga lii si yitte ki nga xam ne nag dafa ndóol ki nga xam ne loxoom jotul gannaaw ki nga xam ne léeg-léeg su añee mi ngi mi ngi xalaat ndax dinaa reer buy amee su génnee gis ni ni fii mën nañ faa am dara ku dem jël saaku ceeb xamal ni kooku du France moo yitteem ku dem di jël ay couches yu mu yu muy jël pour dem gémb doomam kooku France du yitteem kon bu ñu nërmal xel nit ñi naan nit ñi France moo leen taxoon jóg déedéet mën na am ñoo xam ne waaye bariwuñu loolu la woon mais mais li ëpp ci ñi génn dem ci boutique yi xam nga sooy sooy ut da ngay dem fa nga xam ne fala mbir mi bëri boo gisee nit jël gaal ne maa ngi dem Europe dafa yaakaar ni alal bi Europe la kon ku dem ba ne damay profité yi pour toj balaa ngay dem ci butiku jàll bi nekk ci koñ bi te ñu ne la soo duggee Auchan lépp nga fa dangay ngay dem Auchan loolu moo nekkoon li ëpp ci motivation yi waaye nit ñi bur koo wëlbati ne dañu doon ciblé France wala réew sang wala réew sang loolu moom musul nekk suñu combat ñun France ak keneen la ñu yemale dañu ne ñëpp la ñuy liggéeyal muy Asie muy Europe muy Amérique muy feneen waaye bu dee yàlla denk nañu réew mi ku ñëwati na nga xam ne balaa ñu lay signal ne la suñu petrole di nga ci am quatre-vingt-dix pour cent ñun ñu am ci dix pour cent loolu mënatul ne il faut que mbir mi tolloo parce que alal googu ñun ñoo ko gën a soxla ndóol fii la ëppee ñàkk xëy fii la ëppee mën a bañ a mën a faju fii la ëppee bañ a mën a jàng ci école yu baax fii la ëppee lan moo waral ñu continuer nangu mbir mi ñu koy yóbbu loolu nag buñ ko waxee balaa ngay xool kan mooy responsable ci bitim réew da ngay njëkk a xool kan mooy responsable sa réew lan moo tax suñuy njiit di accepter def loolu lan moo tax ñuy accepter signer loolu tey am na ci am na koo xam ne dem na am lu mu diglanteeg waa waa waa Union européenne ba tey waa Union européenne lu ñu mën a def pour jàppale ko dinañ ko jàppale parce que gëm nañ li ñu mën a am ak moom duñ ko am ak keneen suñ ko mënoon a jàppale ba mu am troisième mandat nañ ko def parce que jàpp nañ ni ku mel ni Ousmane Sonko su ñëwee contrat yi dinañ ko xoolaat marché yi dinañ ko xoolaat leneen ak leneen ak loolu moo war a jeex ci senegal parce que ñuy génn Ousmane Sonko taxul ñu génn dañu xam ni seen avenir moo nekk kon loolu lu ñuy leer la tam comme damaa ñëw seet si waa FRAPP comme dama ñëw seet si ma daaneel fa dama ñëw seet si waa FRAPP nga xam ne léeg dañ leen xeex dañ ko jagleel benn réew ma bépp xeetu collaboration bu ñuy am nañ ko tegale ci yoon am ñu am ko li ci des nag ci kilifa diine yi dinañ leen ziar waaw dañ ko exiger ma daaneel ma da loolu yëpp day ànd ñi ñu jàpp nun dañ ne woon duñu noppalu lu dul génne nañ leen parce que li leen tegee loxo du yoon am na luñ ci waroon def ci génn nit ñi ñu mobiliser wu ñu jàmmarloog ñoom waaye kilifa diine rawatina xalifa bu tedd bi di sëñ Muntaxa daf xool gis lii responsabilité am ci réew mi li fi xew naqari ko lool lool lool lool ba nelawatul li ma wax dama koo xam mu ne nag dinaa ci dox jéego ba lii bu mu amati mu defal ñu teranga boo xam ne ak jox ñu cër goo xam ne mënuñu ko fay ndax noon nañu woo ñu fekki ko Touba waaye dafa yebal ay délégation ne leen dem leen seetal ma ñi toog waxtaan ak ñoom biñ ñëwee ñu waxtaan mu nañu li fi xew naqarina ma te bëggatuma mu am li ma bëgg mooy ba léegi nag kilifa gi ci diplomatie am ak ci weg nit ba léegi newuñu damaa bëgg ngeen bàyyi seen manifestation benn yoon waxu ko waaye nit yaay am dégg-dégg lam ñu ñaan mooy dama bëgg ngeen may ma dal waaye nag leen naqar yépp ngeen tënk ko teg ko sama loxo ma def ci li mu war a def bu dee def naa ko nag as diir euh, amuñu ci résultat bi ñu bëgg bu boobaa man sama jaan wàcc na ñu am dégg-dégg ñun ñoo jël suñu responsabilité ne manifestation bi ñu waroon def ci ëllëg sa teggi nañ ko loolu nangul nañ ko kilifa gi daal di jël suñuy revendication def ko ci dix poñ ci fukki poñ teg ko ci loxoom ci ëllëg sa def na ca lim ci war a def la ca des nag am nañu yaakaar ni ci semaine bii ñu nekk nii sax en tout cas ci lu gàtt am nañ yaakaar ni dinañ ci gis résultat te premier résultat bi mooy ñooñu ñu teg loxo te tegul yoon dinañ leen wàcc am naa ci yaakaar ñu dellu seen kër